daan ñetti nit ñaan doon doon tukki dajeeg benn nitu yàlla jëflanteeg moom ay teraanga kilifa gën leen ku ci ne lan nga bëgg ma ñaanaloo kenn ki ni ko xam-xam kenn ki ni ko alal kenn ki ni ko jabar ju baax ki ñaan jabar ju baax génn xarit bi di ko saboté ni ko yaa ñàkk fayda xéewal yi ne ci àdduna du amoo loo ñaan loolu jabar ju baax ñu dem ñibbi seen dëkk teg ca fukki ku ci ne nga ñaanoon góor gi yàlla defal la ko góor ga xëy dégg seen ba nuyoo secrétaire bi ko koo soxloo mun ko kilifa gi mun ko mun ko déedéet damaa wëlërante moom gëj ko gis rek jaanoon fa doog suñu mun ko góor gi fii ku fi amul audience doo fi dugg laa diggéen ni ko kii mooy kan mun ko man nga dajaloon dëkk sangam noonu naa la ñaanal xam-xam mun ko da nga mos a gis xam-xam ku koy ñaanal nit sama xam-xam ma jàng ci daal dal sam ga may fontoo toroxal góor ga góor rucc secret ba mu ko mayoon xam-xam def ci poosum yóbbaale dem jaar ko borom alal bi ba ni ko ndax dalaa joxoon audience

jëm ca kaafu ginaar gi jël ginaar dafa gën a rëy daal di koy rey taalal ko reer fekk jëkkër ca tool ni ko ndiyee am nga gande mun ko ganagu ma mun neen da nga la wëlante mun fukki at gën na laa gis ñëwoon fi doon lay ga nag taal naa ko reer mun ko da ngay xaru gan boo xamul lu mu doon ngay rey ginaar xanaa da ngaa dox mun ko ndiyaay yow defal noon gan teeru teral dëkk bi ni mu toll mu bàyyi bu gan teral tey dëkk bi ni mu toll mu bàyyi bunt kër yëpp ni yaay ñëw si kër nañ dem rek bu lu joxul wax la jëkkër ji ñëw néeg gor gi ñu ko góor gi xameetuma la de mun ko waaw man nga dañoo dëkk sangam yaag sa ñaari xarit ñoo naala ñaana jabar ju baax ah la nga ma ñaanal de gis na gis nga sama dinar gi tam xarit la ko ron ray mu reey ko togal la ree te ni la nekk sama bokk da nga ma ciy dolli leneen mun ko sa ñaari xarit da ya nga andalon ku ne dama jaar sa kër nga toroxal ma neena ñoo liggéey seen alal liggéey seen xama bu ruccina secret ba mu ko ma ne ko may andaale dama la koy boole jox la boole sa jabar ju baax mo tax nañ yalla nañu yalla may soxna yu baax daan góor gu bari xam-xam yoroon doomam jongi ko jàngal benn téere bi muy jàngal doom ci téere ba téere bi ci góor gi feebar nekk sukaraat woo doom jëm ñëw nga ko maa ngi lay dénk ñett na nga moytu diggaaleeg warkat booy tukkee te ba seenub dëkk bu ko teggi na nga moytu gàntu teraan góor gi faatu xale bàyyi xale bi laxasaay ni téere bi ko bàyyam doon jàng te yëgul na nga moytu diggaaleeg warkat booy tukkee te ba seenub dëkk bu ko teggi jaaral sa biir nanga moytu gàntu teraan góor gi faatu xale bi la xassay di téré bi ko baam da jàngal te yëggu lay wër ku ko yeggale ñëw ba ci ben dëkk mën a yegg benn waay ñu ko sëñ mi na nga def mën ko maa rek mën ko téré bi la daal laaj tuddu yi kan moko mëna firi la sa bàyyi mako ko doon jàngal yàlla def mu génn adina te dama bëgg mo xal téré bi góor go xol téré bi ne ko ah tuddu de kenn donc ko mën a firi waaye warkat la xale ba tëdd ba guddi jaaxle nu may def sama bàyyi ne moo diggaaleeg warkat te téere bi kenn ak mën fi fa warkat la nu may def ah naa dem xëy na fi ma koy jàngale fi muy yegge buñ fu diggaal li may ware mu dem sëriñ ba di ko jàngal téere ba téere bi xaaj benn buuru bind leen bind benn bind benn lettre sëriñ ba ni ko damaa soxla woon bopp waxambaane fóore ndax benn sëriñ moo ne ren moo ko daggul def ko ay xar ko foofu danaa wàcc sama ngóor gi te dégg naa ay xale day sàcc yow xam-xam mun ko saa tomb sus am na xale bu fi ñëw bët ki dem sax waa dëkk bi ñu yëgul mën naa la ko yoole mun ko nu ñuy def mun ko da koy jox fas joko yobol wax ma ni fas mel dama yebal ay soldat ñu kar ko ci àll bi bu kenn ki dagge bob bi andil ma kenn ki na war fasu andil la sa alal serigne bi xëy wo xale ba yónni ko ci dëkk bu ba jox ko fas jox ko yóbbal xale bay dem ba ci yoon ni daal seen ab dëkk ni bay di neeno may tukki ma seenu dëkk tegg jaar ci dëkk ba rek daje ko mel ni jog jóob taxaa di ko kii di Idrissa lekk bi ngeen nekkee xale yeena bokkon jàng alquran ko bo yofi def mun ko man de dama do tukki jaar fi Idrissa ne do dem ta añoo mu ne bàyyi bi bu ma gàntu tarang wàcc façon dem deej añ façon rëcc delluwaat ci dëkku sëriñ ba sëriñ ba gis façon ni buur bi da koo war daa dagg bopp xale ba yóbbu ko andi lu ko xaalisam mer nag moom war façon ni day réglé ci problème ba fas soldaar yaa ngi ci àll ba di xaar ko war fa <laughs> ñu dagg bopp xale ba yóbbul buur ñu dagg bopp xale ba yóbbul buur ba buur ba muri ni eh def ngeen erreur sans waa ngeen doy ñu ngi daal yaa ko woor fas yorub yóbbal soo ba moom mee ko buur ba daan ni bopp fóore lañ ma daan ma am naa kaam fóore yéene néeg la borom ma cay fanaan ñaar nañ ko bàyyi xel xarit ak turandoo xarit ak turandoo nañ ko bàyyi xel lu tax pataas ak ñaam bee gën a sa suukar pombiteer te toole lañ leen di jëfandikoo ba ci kër gi waaye pombiteer daf leen ëpp bopp den faa bàyyi dem xaritoog yàpp wala kilo bi day dem ba 800 pataas ak ñam ni gaañ ci marché ñoo passé 400 way deug la dëgg la wala deug la deug la ni mu seere pomme de ter ni seere ngi ñëw ci trondo nañ bay xal trondo bu yama xiyam doom da la ay wajuram ci yett waaw bàyyi lu tax juróoma ci farata ci yàlla ak sunna bay lu tax tuddoo tur baax ak bay lu tax jangalo ma sama diine waaw góor jàngaloo ma sama diine dem nga lañ nañ bàyyi xel turandoo asalaatu xayru mina nawmi hayya ala salaat ina salaata tanhaa ani fahsaa'i suñu mbokk tijaan yo salaatu fatiha sëñ Bamba ni salaatu sitta e xoolal salaat li ko yàlla defal ndox turandoo salaat da koy jaaj ca marché ba yor sa ndox di ko ko wis doo ko defal lu fer gu sedd andi ko ci kër gi takk ko ci musóor wekk ko ci lii mi ñoowaanu ngelaw di ko nga jël ginaar saaf jël pomme saaf jël soble saaf te ku lekk ba regg boo jugee ne dama ko wax ay dëkk njaxate génn góor gu baax ni ma doon kay ma doon la ci leneen boo sax ni mi wax da nga naan xeyu xeyum su may daanele Mouhamad Diop su may daanele daal benn sëriñ boo xam ne Jóob la san benn sëriñ bu mag bu sant Jóob mën naa bañ a wax turam mais Jóob la sant daa toog ak taalibe yi soxna si andil ko reer bi mu taajee reer bi booli ginaar bu teg booli ginaar boo xam juróomi ginaar a ci ne taalibe yi raxasu bëgg a reer sëñ bi neen déedéet jaamu yàlla doog a reer farata bu taxawee warootoo def daal loolu farata ñu jël boori bu ginaar ba teg sa kanamu sëñ ba juróomi ginaar a ci ne sëñ bi kàbbar du julli gee sëñ bi julli benn rakk menn muus ñëw palaat bi jàpp genn ginaar yóbbu mu des ñeenti ginaar sëñ bi toog ña julli ñaareel rakka toog di taaya muus ma ñëwaat felaat palaat bi jëlaat beneen ginaar yóbbu mu des ñetti ginaar sëñ bi jug taxaw ci ñetteeru rakka bi seen muus mi di ñëw ànd ak yeneen ñaari muus. sëñ bi daal fëgg pooj bi daal daal di fëgg pooj bi bëkk néeg bi daal di ñëw jël boolub ginaar bi ñëw teg tam sëñ bi sëlmal bëkk néeg bi ni bëri ni ko sëñ bi maa yàquma julli mun ko yow mi yaa defar julli <laughs> Malick <laughs> xoolal njóobeen boo waxtaanee ginaar day rey rek xoolal njóobeen ginaar